bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala nabiyi lummiyi sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa taabiina lahum bi ixsaanin ila yowm ddin amma baadu subhaana almacbuudi aladl in allaha subhanahu lama xalaqa alxalqa li ibadatihi kaffala lahum jamia aladawaat wal alaat allati tuinuhum ala dalik wa jaala alibadata allati taani atadayun lilwaahidi alqahar مكفلا لهم جميع أنواع الأمن والاستقرار النفسي فجعل المقصود الدين هو حفظ الأمن النفسي والأمن الديني وضمان صيانة الحق والمال والعرض والتي تعتبر أساسيات الأمن والاستقرار اللتان يحتاجهما الإنسان وعرف في الإسلام بالكليات الخمسة كما أقام العلاقات بين العباد على أسس وقيم إذا ما رعيت وطبقت hunni al insanu bil ayshi al rakhid wa min tilka al usus wal xiyam tilka al ahadis al jamia wallati minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha nnaas ufsu salaama wa athimu taama wa sallu bi leyli wa naasu niyaam wa qawluhu alayhi salaatu wa salaam wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin man laa yamanu jaaruhu bawaa'iqa wa qawluhu alayhi salaatu wa salaam al muslim man salima al muslimuuna min yadihi wa lisaanihi wa qawluhu alayhi salaatu wa salaam laa yuminu ahadukum ataa yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsi wa qawluhu alayhi salaatu wa salaam masalul muminina fi tawaddihim wa taraxumihim ka masalil jasadi lwaxid isa stakaa minhu udwun tadaa lahu saairul jasadi bi saxari walxumma wa xayru dalika kathir wa nara al adl al ilahi fi annahu allaqa al jasaa wal mukafaata ala al amali wa itqaani fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin charran yara wa an laysa lil insani illa ma saa fa huwa subhanahu lam yuxalliq al jasaa wal mukafaata bil bil waqt wala bi shahr wala bi intihaai al amal huna nara al adl al ilahi هنا نرى الفجوة الساسعة بين العدل الإلهي والعدل الإنساني في تقييم العمل ومكافاته اللهم قص بأيدينا إلى توفيق طاعتك ginnaaw bi nga xamee ne sant nañ yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci suñ borom mi nga xam ne dara tëru ko te mane na nu ne mu may Cheikh mun taxa bi nga xam ne moo fi taxaw taxawaayu Serigne Touba wér ak kattan aku man ba lépp loo xam ne yéene na koo defal lislaam ci yoonu Serigne ci toolub sëriñ Touba mu def ko mu sotti te sotti colee tan ànd kook moom defal ko itam képp koo xam ne ab jullit la te lislaam ñor la te te li sa jéego yëpp li doon lislaam mu defale la mu defale ko noonu ba li nga yéene nga def ko ci definu kawe sa jot may nu wér ak kattan itam ak sa tasàmmal nu réew mi yokku yokk yokk gi yokk itam xéewal yi bañ mën a dund ci dundin wu rafet ginnaaw loolu nag ajuma ji weesu ñu ngi doon waxtaane ci xam le ne suñ borom day bam nu bindee binduñu ngir wane rek képp ak kattanam ak manam waaye dañoo bind ngir loolu bokk na ci sax bind nañu ngir wane kàttanam ak manam waaye dañoo bind itam ngir bëgg ñu jaamu ko ñu xam ne jaamu googee moom dafa am noo xam ne ni la ko bëggee nam ko bëggee itam bàyyiwuñu ñu ciy doxee suñ xelum bopp bàyyiwuñu ñu ciy doxee gis giinu bopp gis bopp waaye da koo am koo xam ne moom la yónni mu mu wonnu nan lañ koy jaamoo ci jaamu yin wi nga xam ne ni la ko bëggee muy yonante bi sallallahu alayhi wa te moom yonent boobu yi nga xam ne moom la yónni itam ngir mu war noo woon war woon ni ñuy jaamoo suñ borom bàyyiwu ko moom itam ci sagoos boppam bàyyiwu ko ci xelum boppam bàyyi ko ci gis-gisu boppam waaye moom da ko woon ne ko nii laa ko bëgge nii laa bëgg itam nga jottalee ko noonu loola nag bi bi nga xamee ne suñ borom bind nañu ngir ñu jaamu ko dañoo dañoo defal nag ay xéewal yi tax ñu mën koo jaamu bokk na ci xéewal yi nga xam ne moo tax ñu mën koo jaamu mooy moo wax dafa wax ne wakkuloo wasrabu wala foo bu ngeen xiifee day man ngeen a lekk bu ngeen su bu ngeen maree itam man ngeen a naan waaye lekk gi naan gi itam na doon loo xam ne ak ñokk ñokkal du ci bokk na doon rek la fa yem fa mu war a yem loolu mooy li nga xam ne moom la ñu suñu borom sant waaye bi mu nu santee loolu itam kenn ku ne xam ne kuy liggéeyloo nit war nga ko wutal sécurité bu doy sëkk ba nga xam ne dana am xel mu dal ngir mën laa jaamu ni nga xam ne la la bëgg a jaamu itam dafa mel ni suñ borom da bàyyi xel bu a baax ndax dañoo jox dañoo wutal sécurité gu wér a wér ba bañ na sax di ba bañ na ko ba diine ji nga xam ne moom la ñu bëgg ñu jaamoo ñu jaamu ko ci daf koo def muy diine joo xam ne li ko tax a jóg mooy sé jox nu sécurité ban man koo jaamu ni nga xam ne ñu ko bëgg a ndax xam nañ diine li ko tax a jóg ci ni nga xam ne ni lañ koy jàngalee di wax ne al xam sax muy li ko tax a jóg mooy dafa bëgg diine li ko tax a jóg mooy dafa bëgg dafa bëgg jëmm jëmmi doomu aadama ñoŋ kenn du ko kenn du ko jalgati ci lu dul jalgat jalgatin woo xam ne jaaduwul dafa bëgg itam diine ji nga xam ne moom lay moom lay nekk mu ñoŋ noona itam mooy doo doonu diine joo xam ne saayu la duggee saa la neexee nga dugg saa la neexee nga génn waaye dafa doon loo xam ne faw boo ci xësee dugg nan la ko sante rek nga koy def ndax comme doonul loo xam ne dañ la ciy forcer ngir nga dugg ci boo ci duggee tam danga am noo xam ne moom nga ci war a nekkee am na noo xam ne sañoo ko ci sañoo sañatoo cee génn ba bale boole itam ci li nga xam ne defal nañu ko ngir bëgg suñu sécurité mat sëkk moo di ne suñu xel mii nga xam ne moom la ñu jox nga xam ne moom la ñu terale def defalu ko ku dul doomu aadama xel moom itam bëggut kenn ku ko jalgati bëggut kenn koo xam ne dana ko nëxal bëggut kenn koo xam ne da nga ci def loo xam ne dana tax ba xel mi nam waroon a doxee wala nam waroon a liggéeyee du ko def bëgg beneen bi ci teguwaat mooy sa alal ji nga xam ne moom nga am nga xam ne moom ngay dimbanikoo ci jaamu yàlla gi ba tey itam doonut alal joo xam ne kenn sañ la cee sañ sañ na la cee jalgati kenn sañ na koo jël ci lu dul ni nga xam ni la ko suñu borom bëggee kenn sañu koo jël ci lu dul ci loo xam ne sa bëgg sa sa sa sa sa da loo xam ne yow yaa ca d'accord sa bopp kon moomu bokk na ci bokk na itam ci yi nga xam ne bëgg na mu ñoŋ ngir nga mën a am jaamu yàlla ni nga ko bëggee mooy sab der yitam bëggut kenn koo xam ne dana ñëw di ci teg loo xam ne bokkut ak lu di ca teg lu jaaruwut kon day mel ni diine li ko tax a jóg mooy suñ jëmm suñ jëmmi bopp na na ñoŋ suñ diine yitam na ñoŋ suñu xel yitam na ñoŋ suñu elal yitam na ñoŋ suñu suñu der yitam na ñoŋ njaboot gi nga xam ne moom la ñu am itam na ñoŋ loolu mooy tax ndax yaakaar naa ne loolu kon mooy tekk ne kon lépp loo xam ne moom nga aajowoo ci sécurité ngir mën a jaamu sa borom suñ borom defal na la ko ngir bëgg nga mën a ja nga mën koo jaamu ni nga xam ne ni la ko bëggee. loola nag yëmu ca waaye da caa teg itam relation yi nga xam ne moo war a dox ci diggante doomu aadama yi nga xam ne ñoo bokk. ñoom ñoo bokk borom te di te ko jaamu relation yooy itam mu leeral ko ci teg ko ci tegin wu leer naññ wa wan na ko ci wanin wu leer naññ ngir bëgg ngir xam ne lool bu fekkee ne teg jaar nañ ko ci ni nga xam ne ni lañ ko wonee te jëfandikoo ko comme ni nga xam ne la bëgg ñu jëfandikoo ko ba tey itam jàmm képp ak ak xéewal mooy dox suñu diggante mu doon mu doon dundin woo xam ne képp koo xam ne jéem gaa jaar ci nii nga xam ne ne suñ borom rëddee suñu relation war na nekkee loola société boobu ci jàmm rek lañuy nekk ci xéewal rek la nekk xéewal loola maanaam rëddin relation bi nga xam ne nag moo war dox suñu diggante suñ borom bi mu koy leeral ji bokk na ci loo xam ne moom moo ko leeralal boppam am na ci loo xam ne itam yonente bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne mooy leeral moom la wax mu leeral bokk na ci yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg mu doon loo xam ne mooy lii mooy li war a dox suñu diggante ndax mooy tax ñu ñu am jàmm ci suñu diggante moo di ne kenn bu mu romb mbokkam ta mel ni romb ko boo rombee sa mbokk njullit na nga xam ne kii sa mbokkum jullit la nga woon ko ne ko nga woon ko ne ko yëg naa ne sama mbokk nga jàmm li ma bëggal sama bopp laa la bëggal muy jàmm ak xéewal nga nuyu ko jàmmanteeg moom loolu bokk na ci li nga xam ne mooy mooy tax relation bi seen diggante war a rafet bi ci teguwaat itam mooy kenn koo xam ne am na loo xam ne yàlla may mane la la ko la nga am nga di ci dimbale ñi nga xam ne ñooña xay na am nañ nekk nañ ci ak lot beneen bi ci teguwaat mooy da ngay léeg-léeg itam wéet ci sa borom yi wéet ngir sa borom képp jaamu ko ci jaamin wu sell loolay nee na loolu yonent bi sallallahu sa wasallam wax na ne bu ñu ko defee danañ ba liggéey danañ tabbi àjjana te jàmm rek lañu fay jam lañ fay duggee du doon loo xam ne dañu ànd dañ ànd ak benn coono ci duggiin wa bokk na ci yi nga xam ne itam yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañu ko ngir bëgg relation bi nga xam ne moo war a dox suñu diggante doon doxin wu rafet moo di ne jullit bu nekk nee na jullit dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne du du laal def ci ab ci ci ci ci loxoom luy lor benn jullit du di wax ci aw làmmiñ itam luy lor benn jullit bokk na ci li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ba tey ngir bëgg rek relation bi nga xam ne moo dox suñu diggante mu dox ci doxin wu rafet moo di ne jullit bu nekk la nga yéene sa bopp danga koy yéene sa mbokkum jullit beneen bi ci teguwaat mooy dañoo war a nekk wenn say di bokk lu ñuy jëf di bokk loo xam ne moom la ñuy yëg di bokk lu ñuy naqari di di bokk loo lépp loo xam ne mooy suñuy pexe itam ñu bokk ko comme ni nga xam ne ni la ko Sëriñ Tuubaa waxe woon ne ñi nga xam ne dañoo bokk diine lii ci lii li war a nekk li ñu war a bokk mooy nañ bokk yéene bokk pexe te bokk liñ am loolu mooy moom la lislaam bëgg itam ci ab jullit bu ne jullit bokkub jullitam na bokk ak moom yéene na bokk ak moom ay pexe na bokk itam ak moom li mu am loolu mooy mooy tax jullit mooy tax jullit gi wér loolu nag moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wane woon ci ne jullit bu nekk dafa war a mel ni aw benn cër la ci jëmmi jëm jullit gi benn cër bu ne xam nañ ne jëmm ji lu laal jëmm ji rek cër bu nekk dana ko yëg kon mu mel ni kon faw rek ñuy bàyyi xel ne nañ war a ni nga xam ne rek suñ tubaab waxee rek muy bokk yéene bokk pexe te bokk li ñu am tey soppante tey wóolante tey dimbalante loolu mooy li nga xam ne mooy moo moom la suñ borom bëgg ci ñun waaye li gën a yéeme waat itam moo di ne suñ borom bi nga xamee ne dañu andi fii ngir ñu jàmm ko jàmm gi dafa wax ne boo ko defee nii lii laa lay faye waaye li gën a yéem ci fayin fayin wa moo di ne moom du la fay ci waxtu wi nga def ci jàmm yàlla du la fay li nga li nga li maanaam ci coono bi nga ci def du la fay ci julli nga ba pare julli julli mu daal lay fay waaye lim lay faye mooy nanga nga defee jullit ga nanga nga defee koor ga na nga defee na nga nattee asaka ja maanaam ci jëf ji la lay fay waaye du la fay ci waxtu nga ca jeexal ngir mu jëf ji mën a sotti du la fay itam ci bu jëf ji noppee ba noppi ndax xam nañ ne loolu moom la doomu aadama di def waaye day mel ni ak ñàkk maanoo da cay feeñ ndax xam nañ ne ñaari nit mën nañoo bokk di liggéeyandoo ci benn barab duggandoo ci waxtu wàccandoo ci waxtu waaye buñ xoolee mën nañoo gis ne am na ci ñaar ñooñe koo xam ne moo gën a jëf moo gën a rafet jëf moo gën a gën rafet ab taxawaay kon mu mel ni ñàkk gaa xool jëf ji di xool waxtu wi wala di xool temps ba mu fa def loola léeg-léeg dana dana tax ba maandu gi nga xam ne moom lañ war a def suñ diggante ci jëf ji nga xam ne moom ngay defal moom la doomu aadama defal maandu ko mën naa bañ a nekk ni mu waree bu dee itam dañ ko aj ci saa yu nopp jëf ji noppee jëf ji mën naa ñaari nit mën nañoo bokk defandoo dara waaye bu ñu noppee ñaari jëf ya mën nañoo wuute ci defin wa kii mën na koo def ci defin wu sell woo xam ne dara ab kooj wala ab rax amu ca kee nag mën na koo def mu sotti waaye nag ab rax ab wala ab kooj mën na caa nekk kon ba tey mu mel ni fay leen ñoom ñaar ci noppi ci jëf gi ci kese rek ba tey tekkiwut ak maandu ci doom ci ci sa diggante ki ki lay jëfal loolu nag moo tax suñu borom moom li muy xool mooy jëf ji nga jëf rek fi la lay xool fi la lay fayee loolu itam moo tax ba jëf ji li ngay defal suñ borom mu mën a nekk lu rëy a rëy ci ci diggante suñ néew a néew lu gën a néew sax ab seconde man nga cee defal suñ borom loo xam ne jëf ja maanaam pay ga mën naa rëy lool wuuteeg nag li nga xam ne moom ngay defal doomu aadama ñaareel bi itam moo di ne suñ borom yërmandeem ci kaw yërmandeem tax na ba li nga koy defal ci lu baax ak noo ko defee rek doonte doo doo sonnoo ci itam suñ borom dal koy fay laha ma kasabat wa alayha maktasabat waaye li nga def ci ab li nga nga xam ne da ko koo def ci ab safaan moom lam la cay lam la cay topp mooy li nga xam ne yaa ko def te te jublu ko waaye loo def te jubluwoo ko ci ab safaan suñ borom mën na la koo jéggal waaye loo def ci lu baax lu mu mën a doon doonte yaa ko jublu doonte jubluwoo ko itam suñ borom dana la ca fay kon loolu mooy tekki ne yërmande suñ borom ci ñun rëy na loolu mooy tekki itam ne suñ borom jëfal nañu xéewal yépp ngir bëgg rek ñu man koo jaam ci jaamin wu rafet loolu moo tax suñu boroom di wax ci alxuraan kasaalika yutimmu ni'matahu aleykum la'allakum tuslimoon suñu borom defal na leen xéewal yépp yi ngeen di soxla ci li ngeen di lekk wala li ngeen di naan wala li ngeen di jëfandikoo wala loo xam ne wala ni ngeen koy jaamoo ak jàmm ji ngeen di di ngeen di nekk ngir man koo jaamu defal na leen loolu lépp ngir bëgg rek ngeen doon ay jaam yoo xam ne da ngeen di jaar ci ni nga xam ni la ko bëggee kon suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man te mooy borom dimbal yàlla nañu dimbali ba ni mu bëgg ñu jaamoo ko ñu defee ko noonu te buñ ko defee itam moom ci ci ak mbaaxam mu fay nu ci lu kawe suñ jot loolu suñ borom man na ko jàpp na ko yàlla nañu ko defal rabbana laa tuzigh quluubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la rabbana innana zalamna anfusana zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta